di di nuyu waa Kajoor production bi yëpp di jël nit nuyoo di jiital suñu père Bourkhane mu jox ñu bokk ci staff bi ñëpp di nuyu suma sëriñ sëñ Mourtala sëñ Maodo Boussa Dieng suma papa ak suma yaay soxna Abi Mbacke maa ngi nuyu bu baax baax di nuyu soxna. lan moo tax waaw li tax góor soog maama Lamine comme maama Lamine dañ ko wutaloon adversaire moom double moteur yàlla mi dara tawul def double moteur blessé te comme wéragul te maama Lamine tam boo xoolee boo xoolee boo xoolee xaar bi yàgg na boo xoolee xaar bi yàgg na ci xaar bi xaar bu yàgg boobu nag tey il faut ñu xool ki nga xamante ni dañ ko mën a wutal te comme góor soog tamit mi ngi fi. te bëgg combat ñoom ñaan ñu bëggante li olof def naan ku wut fu mu fanaan ak ku wut ku ko wettali te jël bunt du leen boole mm. bu ñu waxtaanee ñoom seeni staff ñu nekk tamay nit yu raisonnable ñu bëggante ñu dox combat bi te dafa am leneen lu nekk ci biir combat bi lu ngeen bàyyiwul xel dafa nekk revanche par procuration muy diggante Papa Sow ak Siteu kii leet naa Papa Sow la kii nekk leet naa Siteu mm-hmm. kon loolu dafay doon loo xamante ne loolu mooy ñëwaat rek te xam naa ne Gris Bordeaux moom bu ñu yéexee rek mafia tarkinda bi jaar ne le mafia Cambérène bi waa jàmbaar jaar ne le Cambérène parcelle borom sareet yi bu yéexee tuuti yaakaar naa ni maa ngi doon xalaat mi di ñu tëj stade bi ma bu amu sens 10 heures nañ tëj stade bi combat kombaal bi rek mën na grand combat mm-hmm. ndax ku xool Maama Lamine li muy def xool Goro Sock li muy li muy drainer ci ful kon ñooñu ëppale wuñ leen dara yóbbu luñ leen dara dayo bi ñooñu am ñoom àgg nañ foofu mm-hmm. ndax tey ñii buñ ku ci bokkoon nag Ama Baldé di ko sonal ci ay contact ku ci bokkoon ak Gris Bordeaux écrit di ko sonal ci ay contact kon ñom dayo biñ toll fofu la ñuy toll tay kon grand combat la te ñu bëgg tamit jox amateur yi ak consommateur yi lo xamanteni tay ku ci jënd sa code wala ngay toog bo jëndé sa code toog di ko sétane wala nga ñëw esaat di nga consommer lo xamanteni lu am qualité la mo tax ñu fassé nako indi amateur pour le 9 juillet inshallah mm-hmm. kon dal euh, le 9 juillet amateur yi dinañ tudd ci làmb luñ ko jot. incha rabbi tam na yeneen yoo xam ne koy dox diko togg. war ko yóbbu ci journée le 9 juillet bi incha allah. waaw boobu liggéey bi mu ngi avancé ak encadrement bi pour la 20 mai diggante armée ak mbay guy gi ñu war fa daje incha allah rabbi ñu fay woon ñëpp di fa woo amateur yëpp te suñu bëgg-bëgg mooy Ama Baldé teew fa Gris Bordeaux ak Gora Sock ak Maama Lamine loolu après encadrement bi nañ toog dinañ ci waxtaan bu baax a baax ba nga xamante ne képp ku fa ñëw incha allah di nga fa gis aada ak cosaan pour le vingt incha allah. bi sax dañ ciy waxtaan ndax am ci loo xam ne ku ma ko décoré ma lànk ba it ku ma lànk la mais waxal ma tontu la. waxal ma tontu la. loolu nga wax duma moromam waxal ma tontu la. sa mhm. damay jëkkee rek ci ñaanal rek borom bés bi di ko ñaanal te képp kuy dund làmb war nga ko mën a ñaanal ku ne xam na ne su ko teraanga dabee ci làmb sax lu ko dab la mais tax koo dugg ci làmb. dafa xaritoog mbër yi di leen jàppale ci seeni bés comme ni mu tàmmee di def ay social dem ba ci biir mu ne naa tëgg làmb gis nañ ne mbër yee ëpp journée yi moo tax mais bu dul bu dul woon loolu jafe-jafe yi ko dal sax day bàyyi witi leneen léeg-léeg mu ne ci xelam mais dafa xaritoog mbër yi benn lañu mu të dëgmal événement nag bu am solo Gris Bordeaux rek ak Ama doy na mais bu la ci kenn ndax combat bi combat amateur la combat amateur la ndax ñaari mbeur la ño xamanteni ni dañuy xex dañuy beure ku ne da ngay joxe li nga am duñ tricher ci lamb day rek def li ñu def kon combat la bo xamanteni ni combat bu am solo la mais journée bi en général diggante Gris do Ama balde, nga jël goro sok ak Mama Lamine toftol ci ak yeneen combat yi ku yéex do am fo tok événement la bu am solo. kon journée bu jarul def 10 combat. non lolou duma ko xagn ken ndax man ma mbeuri bokk ak ñu naan nañ ko def six combats ñun ay ménager lañu mais avant ñuy doon ménager dañu doon directeur technique yor école de lutte te gis nañ li ëpp ci xale yi du ñu moo tax ñun bu ñu sañoon combat lu mu bëri doy bu ñu sañoon combat yi bu mënoon a ëpp dix sax dañuy wax na ko ëpp mais promoteur la def li àttan rek mais loo ci mënti daal journée la boo xamante ni ne combat yu neex lay doon diggante Gora Sock Mama Lamine Gris Bordeaux Ama Baldé waaye nag combat bii taxaw moom. tàggee bu ne am na jàppal diw nag. su ma sañoon kandaway daal. Ah, waaw kandaw waaw kandaw mais jox ko cër rek. seddu ko cër ndax bërekat da nga koy respecté boo ko respecté wul boo juumee da lay daan maanaam looy def na wóor booy xeex na wóor booy bëre na wóor waaye nag lañ nar moom duma ko wax damay koy déeyoog kandaw waaw buñ déeyoo mën a ko defal ñii defal na le déet boo ko lee du baax déedéet déedéet buñ xamee fa nga jëm doo yegg mais dal nangul na ko mbeureum ne ku ne xamne champion la xam man top moko ci arène bi rek hmm. même beure simple damay seetaan yi hmm. man bokuma ak ñi nga xamanteni dañuy rek beure simple bi beure dóor bi man même simple bi damay dem ta xamna ne mom daanan la hmm. waye nak ki ñu yor leeru gumba la de déedéet déedéet suusalu kaani la waaw suusalu kaani la de te luko fitam may luko ko bëtam may fitam da ko ko xaj te ñi ngi ñaan nak le jour ci yalla and ak ñun te ñu ngi ciy am yaakaar. yàlla defal ñëpp jàmm. bu jour yàlla may ñu ndam loolu la ñuy ñaan. ngi ñaan yàlla may ñu ndam daal. mi ngi fi. waa di waajal moom it combat bu am solo. Lac bëgg na combat bi lool waaye ñoo ko gën a bëgg. Ah. te ñu ngi am yaakaar ci ne daal dinañu am ndam bu ci yàlla ànde ndax xam nañ li ñu ci jik te dinañ ko def dimanche incha allah ñu ngi ñaan sunu buur buur bu mag bi. borom bët bu rëy bi ànd ak ñun yàlla nu yàlla may ndam ci tàkkusaan yi ñu dëgmal yëpp te yàlla def ci réew mi jàmm jërëjëf Mohamed di gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ ba Seydou Mahamadou Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ñaan yàlla yokki leeram xalifa bi fi nekk Cheikh Ahmed Tidiane Sall yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér di nuyu waa Louga waa saxaaf baabu ni nga ko waxee léegi waa njagu rëy ki nga xam ne si ni falaa juddoo di nekk ci tund njàmbur waa jàmm waa ngeeji jóob waa Caar Joob waa Caar Njaay di nuyu tudd njaambur bi yëpp di nuyu waa aussi gi nga xam ne si ni lépp lu ma am ci teranga gannaaw yàlla falaa ko amee di nuyu sam-sam gi nga xam falaa yeewoo di nuyu Pikine gi nga xam ne si ni falaa fere kon man damay wax ni rek aw ma droit def erreur waaw parce que boo nekkee nit nit ñi amoo droit def erreur te nit nit ñi laa ñi nag waaw ñaar ñi ko ne xam na ni combat bii wax naa ni léegi laa koy wax ma ne Ibrahima xanaa yaram wee rek waaye diggante Ama Balde ak Gris bi kenn xaju fa Mm. góor a soog mi boo xoolee barki démb bi muy bëre combat bi mu mujj bëre li ñoom amaari dugal la dugal boo yore télévision wala nga yor site internet ubbil nga xool góor komba combat bu mujj bii mu bëri ak Fils de Balla nga gis ni mu def stade bi Mama Lamine mi ku ne gis na digganteem ak euh, xale bi dëkk Bawal Buur Siin bëri bëri bi mu bëri ak mbooloo mu bari moom fa indi ñaari mbër lañu yoo xam ne ay mbëru amateur lañu Sénégal bàyyi leen xel ñuy ay espoir yoo xam ne yaakaari làmb lañ mm-hmm. ko Max waxe woon léegi laa koy wax moom mbërëm lay ñaanal mu am dam man sama mbër lay ñaanal mu am ndam góor a waxuma la làmb waaye damay ñaan yàlla mu nekk roi des arènes boo ma njëkkee ñaan yàlla dogal na euh, yàlla dogal na njëkk nga maa ñaan waaye euh, yaakaar naa sama ñaan mooy nangu ndax ñaanu gone yàlla da koy sawar di ko nangu ndax ñaanu gone waaw ñaanu gone la te moom te it moom sama gàmmu la su ma ñaanee rek yàlla daf may nangul et puis làmb muy ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yu yaru lañ yu Sénégal war a bàyyi xel Mama Lamine damay déglu ay interview am léeg damay jooy sax ci ni muy waxe ni muy jëfee ak ni mu gëmee yàlla bi ko ndog yi dalee ak maanaam nga xam ne kii jullit piir la su waxee rek nga xam ne si vraiment waxam rafet na te loolu la ñuy naw ci nit nit booy wax àdduna di la seetaan àdduna di la déglu bul wax dara luy yeefit na ñoom ñaari ñii ñoo mente xaalis góor a soog budul Mama Lamine du am xaalis Mama Lamine budul góoraa du góor a du xaalis te adversaire bu ñu jox góor a soog bu ñu demee dellusiwaat rek mu daw Mama Lamine mi adversaire bu ñu ko jox damay toog CNG léeg-léeg di déglu max di déglu ndooy adversaire bu ñu ko jox mu daw kon ñoom ñaar ñi am nañu mérite am nañu way te dañoo bokk ci champion yi nga xam ne say ji dañoo war fekk seen mag parce que lamb ji ni ma ko wax toujours dafa manqué ay espoir a fekki te ñoom ñaar ñii mën nañoo fekki mag ñi may ñaan yàlla nag ma jëkk ko fekk mag ñi soo fekkee mag ñi ba pare moom mu ñu fekk mag ñi ñëwee ñuy toog lamb lii la soxla sport lii la soxla mais face à face am na ñoo xam ne bu doon ñoom même donte présentation la danañ ànd ak préparateur musique yi jël ay xorom xëpp ko fii jël ay laar xëpp ko fii làmb ji soxlawul loolu sport bi soxlawul loolu ay adversaire ngeen rek ci benn tàkkusaan te mbër mu ne sa morom mooy sa trésor kon buñ ñu comprendre woon service d'ordre sax warul ñëw ci face à face mais préparateur musique yi day ñëw ñoom ñooy doon star yi mais lii li ko waral mooy ñaari xale yu yiw lañu ay sportif lañu ku ne xam ne ne sa adversaire moroom nga rek pour benn tàkkusaan mais duñ ay ennemi te lii nag nañ ko message bi nañ ko jàllale mu jàll fu ne CNG lii la bëgg suñ demoon ba bëgg arrêté face à face yi violence yi ci am la mais ñii boobu léegi ñi ngi kaf di ree te bu arbitre bi sifflé badar lay doon njarndeem lay doon ndax lu waaye am sa kër ngay yóbbu baax na jërëjëf ferdinando no di me yo manda que va a barrir del bosque pan man falei